ci yëkkati kàddu sant mbooloo mi gërëm leen sant bokk yi gërëm leen loolu nag kàddu yu gàtt lay doon du mën a gudd ndax xam nañ ne jataay bi mayewu ko waaye daal foo waay mën a jóge te bis bi taxoon laa jóg te nga ñëw fi tey jii moo xam ci suba gi mbaa ci bëccëg gi mbaa ci ngoon gi kenn ko ci nekk sëriñ bi gis na la xam na la te gis na sa taxawaay mi ngi lay sant di la gërëm sëriñ baa ngi sant mbokkam yëpp diggante askanu Mbàkke ak Mbusoobe kenn desul ñëpp teew nañ fi ci bisu tey gii te ñi fi teew ñëpp it kenn ci ñoom teewu fi ngir ñu di ko tudd mbaa ñu di ko sant dañ fee teew ngir dox si ak bokk teew fi ngir jokk si ak bokk gi nga xam ne moom lañu ñu alxuraan sant loolu moo leen fi indi tey te loolu la sëriñ bi xam moo tax lim bi sax sonnuñu ci boo ko gisee sëriñ bi ko doon lim da koo dagg ndax xam na ne ñi fi ñëw ñëwuñu fi ngir ñu di leen tudd mbaa ñu di leen sant mbaa ñu di leen gërëm dañu fay ñëw def si seen devoir seen warteef gi ñu jàpp ne war na leen ci jokku bokk ci ni ñu ko lislaam digale ñu ñëw defe ko noonu ci bis bi kon sëriñ bi sant na mbokkam yépp gërëm na ñëpp fépp fu waay mën a jóge sëriñ bi sant na la gërëm na la sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëñ Masamba Kanni te am taxawaay bu am solo boo xam ne ñi ngi ko taxaw ñooñu nag ñaari pàcc lañ dafa am pàcc boo xam ni ñooy sëti sëñ Masamba Kan yi di daayira euh, Fatxul Mannaan ñooñu seen taxawaay fu bis bi àgg ñooma ñooy dajale seen i àddiya di góor góorlu li ñu am ak li ñu amul li ñu man ak li ñu mënul di ci góor góorlu ba bis bi àgg fi tey ñoo ñëpp seen taxawaay seen maam la ñuy liggéeyal sëñ ma Kan ni sëriñ bi gis na ko sant na leen gërëm na leen te mi ngi leen di ñaax itam te ñooñu man ci laa bokk ñu gën a góorlu ñi ci doon ay ndaw nañu góor góor lu ci sàkku xam-xam lu ci jéem a góor lu ci jéem a doon ay boroomi xam-xam ku gis jataay yi ñu waajale bis bii ci xam-xam waajale ko ci xasaay di sëriñ ma Kanni yi dégg li Gana Messere wax ci sëriñ Masamba Kanni fii lépp danga nga xam ne sëriñ Masamba Kanni nitu xam-xam la woon du daanukat boo xam ni daawul ànd akum xelam déedéet nitu xam-xam la woon boo xam ni fu lu mu mas a wax mbaa mu def ko am xel ak xam la cay jiital te looloo taxoon itam sëriñ Touba daawul tàmbali aw waxtaanam te laajtewul ndax sëñ Masamba kan mi mbaa ma Masamba Mbàkke sama ñaari Masamba yi ndax kenn ñëw na ci bu ci kenn ñëwul faw ñu wooye ci kenn ba kenn ñëw mu doog a tàmbali la muy wax ndax xam na ne li muy wax su noppee bu dee ci araab la ñooy gën a ñoo koy gën a mën a leeral te duñ ca ëppal duñ ca yéesal bu dee ci wolof la it ñoo koy gën a mën a leeral te duñ ca ëppal duñ ca yéesal moo tax balaa tàmbali ay waxtaanam dana ne ana sama ñaari Masamba yi ndax kenn ñëw na ci ku ci ñëwut ñu ko xam-xam la loolu pas-pas la waaye ak nite la kon ci ak nite la doon dox te xasida gii ñu fi gaaral léegi ku ko dégg xam ne sëñ ma Masamba Kanni daana jël cër bi yàlla moom mu jox ko ko cër bi yonent bi moom mu jox ko ko waaye cër bi sëriñ Touba moom mu jox ko ko ndax wa baada xasdi hahuna taslimu bi yadi man sumaatuhul xadimu multamisan kawni ya abdallahi fi sunnati lmuxtaari babillahi kooku xam na li yàlla doon mu jox ko ko xam na li yonent bi doon waaye xam na li sëriñ Touba doon ci moom loolu lu mu daan def la lu mu daan bàyyi xel la sëriñ bee ko bëggaloon boppam nag yebal ko fii mu ñëw sanc si fi ci atum 1913 booba itam aw jiwu la yor ñëw bëgg a dem bay naawel sëriñ Touba wooloo ko sëñ Modou Moustapha sëñ Fallu sëñ Massamba Mbacke ak moom muy ñeenti ni sëriñ Touba jox leen ndigalul sanc sëñ Massamba Mbacke sanc Darul Karim gii sëñ Massamba Kandi sanc Darul Xaddim gii sëñ Fallu sanc Ndindi sëñ Modou Moustapha sanc Tindóol yi mu ne leen kenn ku ci nekk na fa sanc di fa dundal xam-xam di fa tarbiya nit ñi te bu sama jumaa ji noppee bu julli jotee ngeen ñëw julli si ci loolu ndigal la loo xam ne Serigne Touba ko jox Serigne Massamba Kanni ba mu ko sancee it mu taalif ci xasida goo xam ne daarul xaddim la ko tënkee loolu du jar ñu di ci sori xasida gànk ñu bari am nañ ko ma nga tàmbulee ci daani rajaa yi libaaxin xadim karimin mujibin muridal xadim loolu ci xasida googu la tàmbulee mooy mooy mooy bayt wu njëkk wa kon nanu xam ne am nañ aw sas ñun sëti Serigne Massamba Kanni am nañ aw sas ci dox ci nitee am nañ aw sas ci dox ci xam-xam am nañ aw sas ci jéem a dox ci xel mu rafet loolu aw sas la woo xam ne képp ku ñuy tudd sëñ Masamba Kanni di la tudd xamal ne saw sas la woo xam ne yaa ko war a bay te bu booyee yow la booyal booyalul sëñ Masamba Kanni booyalul kenn kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñi tollu ci sàkku xam-xam nañ dem sàkku ci xam-xam ñi toll ci wuut a am liggéey mbaa dara pexe muñ mën a def ba am xaalis baax na na l'essentiel mooy na ndax loolu mooy tax bu bis bi ñëwee ñu mën a taxawal liñ bëgg def liñ bëgg te loolu wane ngeen ko ku ko ci manit def nga ca la nga mën lépp ndax ku gis lii xam ne fu bis bi àgg yéen sëti Sëriñ ma Kanni yéen a ko fi àggalee kon nanu góorgóorluwaat fedd li laxasaay yi te xam ne du nu mas a wàcc ñaareel ba mooy ñi nga xam ne mooy daayira bi nga xam ne mooy fédération bi lëkkale yeneen njabootu Sëriñ ma Kanni yi mooy taalibe yi aju ci kër gi ñooñu sëriñ bi wutal na leen aw tur daayira bi hadaiqul fadail la tudd hadaiqul fadail la tudd moom la sëriñ bi tudde daaira bi fédération bi muy ñi aju ci kër siñ daam maram ñi aju ci kër bàyyi siñ maram moom sax laa war a jiital ñi aju ci kër siñ daam maram kër baay siñ cumbuleen kër baay siñ abdourahman bousso kër baay siñ allaaji fat njaay ak mbooleem doomi siñ masamba kan yi kër siñ maxtaar kan yi ñoom ñëpp ñi ngi ci biir fédération boobu kon sëriñ bi gis na seen taxawaay yéen itam di leen sant di leen gërëm ñi ne ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp ñenn ñu ne ci yéen it euh, seeni yitte ak naqariwaayu jamono bisub siñ masamba kan bi du ko xam ci yéen bu ñu wooteelee sëñ Masamba Kanni da ngeen ci def langeen ngeen man ak la ngeen mënut te ku ne xam na ne jamono naqari na lool ci yéen naqari na ci ñëpp ndax loolu ku ne mën na koo xam ci boppam kenn ku ne ci ñun mën ngaa xam ci sa bopp naqari waaye jamono fi mu toll kenn ku nekk ci ñun man ngaa xam ci sa bopp metti waaye sas yi ñuy tegoo waaye jàmbatu leen ko euh, xalaatu leen ci deng dengalu leen ci lépp lu leen sëriñ bi woo yéen a nga cay góorgóorlu di ca def la ngeen man la ngeen mënut tam ngeen di ko ci def sëriñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm cant daa mënut a weesu sant moo tax sant rek la ñuy wax ndax bu mënoon a weesu sant yàlla dana ko sàkk ci ñun ñu def ko ko te la yàlla lam sàkk ci ñun mooy ñu sant ko kon lu ëpp cant bu amoon loola la yàlla sàkk ci ñun ñu def ko ci moom kon loolu la amoon ci ay kàddu yu ñuy yëkkati sëriñ bi sant na ñëpp di sant nag waa sécurité bi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi fi muy ay wëllëre boppam yor sécurité résidence xaadim rasoul bi ñu ngi nii taxaw ci suba ba léegi dañoo taxaw tooguñu waaye waa gendarmerie nationale comme monsieur le commandant yabal na fi ay éléments yoo xam ne ñoom itam ci suba ba léegi ñi ngi fi sëriñ bi sant na leen gërëm na leen gis na seen taxawaay moom ngeen ko defal gis na ko sant na leen ci gërëm na leen ci jàpp naa ne ak cantamam ak ngërëmam ci bis bi mooy li ëpp solo cantu keneen ak ngërëmul keneen ci kudul moom ci bis bi sëriñ bi sant na leen yéen sécurité bi bu baax di sant presse bi bu baax itam loolu bàyyi sëriñ bu sa jiitu na ci ci wàccaay bis bi taxawaay yiñ ci am ak yitte giñ yittewoo bis bi eh, di ci def ay émission di ci def ay jataay yu am solo ñu ngi leen ci sant di leen gërëm waa Sen TV may nañ ñu ci jataay bu am solo Ablaye Mbaye Peex waa ci sëñ jiili ñang ci lañ ko jaar may nañu ci jataay bu am solo ñu def ko ci télé bi waa jant bi fm ñi ngi nii toog at mu jot sëñ góor a njaay ndaanaan day ñëw ànd ci bis bi waa rafa tv ñoom tam wàlli si gis ngeen leen wàccaay wi ak biñu agsee ci bis bi taxawaay yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci waa tawféex production itam daaw ñoo ci njëkk taxaw ci taxawaay yu am solo ren ñi ngi nii waa dakaar instant yi tam kazalika ñëw nañ fi jël ay élément jël waxtaan yu am solo yóbbu ko te incha allah yooyu yëpp danañ ko Euh, dugal ci internet bi ñëpp gis ko ñëpp xam fi mu féete kon ñi ngi sant ñëpp kàddu gi sëriñ Seexuna Buso moom bàyyi sëriñ Maram Buso la ñu koy jox euh, di jégalu bu baax sëriñ bi ci kàddu yi yëkkati gi ñu yëkkati kàddu ci seen kanam ak toogaay kaw bi ndax ay taalibe rek lañ yu bëgg a doon ay murit te doonaguñ ko di te buñ noppee ci murit gi ay saadix lañ bëgg a doon te lenn lu ci nekk mataguñ ko xam nañ ne matuñu sëriñ Touba ay taalibe waaye doxale nañ sëriñ Masamba Kanni suñu digg ak moom di sàkku ci sëriñ bi ngeen ñaanal ñu ñu doon ay dëgg-dëgg taalibé Sëriñ Massamba Kanni ndax Sëriñ Tuubaa moom ëpp nañu sëriñ jéemu ñoo doon ci moom lenn lu dul ay jaam waaye nag Sëriñ Massamba Kanni bëgg nañ ngeen ñaanal ñu mu nangu suñu taalibe nangul ñu liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy liggéey ci moom nangul ñu itam pas-pas bi ñu am ci moom kattanal ñu itam ba fañ ko bëgg a yóbbu ñu yóbbu ko ci barkeb Seexul Xadim ànd koog njaboot yëpp ndax ñoom ñëpp am yéene jooju kenn ku nekk ci ñoom yéene jëm am buy jëf ngay xam ne yéene jëm am moo ëpp ni muy jëfee muy ci taalibe yi muy ci njaboot gi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yéen mbokk fi teew ñu ngi leen nuyeen ñëpp ci turu sëriñ bu Bousso ah, kàddu yi ñu yëkkati nag du kàddu yoo xam ne dafa jëm ci li ñuy jiitoon wax ba noppi déedéet ndax li ko tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo encadré woon si Gana ci waxtaan wi ak jëmi si Gana Messere mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi ak kàddu gi nga xam ne joxoon nañ ko ci turu suñ Fallou si yëpp laat moom bàyyi moom bàyyi si suñ ndam mu mu jàll ko léegi ba jóg kàddu yooyu yenn kàddu mënut cee tegooti lu rafet rafetlu ko ñun daal sëñ bi daal nee na sant na yàlla ci ak njaboot gi ko yàlla booleel. muy ci ñi wàllu ñi nga xam ne dañoo bokk moom ci wàllu uh, mbokk ak ñi nga xam ne dañoo bokk moom ci wàllu pas-pas wala bokk yi mooy ñi xam ne ñoo bokk si Masamba Kan ci wàllu deret wala pas-pas bi mooy nga xam ne sëñ Tuubaa moo lëkkale woon si Masamba Kan yi seen maam ak seen i baay ca lëkkale googee ak pas-pas boobee ba nëgëri ñoom fecc ko ñu ko ànd moom. nee na kenn ku nekk ci ñoom sant na leen sant goo xam ne gi euh, jégg na dayoo sant gi ma sant nag santul leen ngir moom moom kese boppam daf daf leen sant santal leen ñim fi wuutu ñëpp ndax euh, lii ko ci kër gi euh, ren du daaw du daaw jëkk ay at yàgg la ca si ma sàmba kan ni ba tey doxeen wu doxeen wu pas-pas rek mooy dox ci kër gi ci loolu nag bi mu demee ba suñu borom subhaanahu wa taala teg ko ci ci la ci lañ gëm ne nag lim yi di wax naan Serigne Touba amut tànk ginnaaw tànk kanam la am feeñal nañ ko ci ndax kenn ku ne xam ne bisu simi kanam bi àgg na ci dimension boo xam ne doom yi bi fi nekk sax aggutoon aggutoon foofu ca loolu kanam la jëm ca loolu kenn wërlu ko ku dul yéen yéen ñi xam ne la ko bokkal sant nañ cant koo xam ne cant gu kawe la gu am gu am gu am tàmbali waaye amutu moom waaye tàmbali bi li jëf si ci bokk ko moom la ci tegu nag eh, eh, cant goo dégg jëf ay tax waaye jëf nag feeg doomu aadamaa ngi dund du ko du julit du yëfar kenn koo xam ne kii yaa ngi dund ba pis jëf la wàcc amut jëf ji baax jëf jeneen la wax waaye jëf mooy am yoonu murid nag dañoo baaxoo tënku ci ndigal sant ak tere mu am nag loo xam ne ki nga xam ne mooy buntam ci sëriñ Touba di buntam di doon kenn ci pàggateefu Serigne Abdou Khadir de pàggateefu Serigne Samba Kane muy Cheikh Abdou Khadir Mbacke dafa am liggéeyam boo xam ne Serigne Cheikh Mbacke doom moom daf koo daf koo sant kër gi ci wàllu mbàcc ak ngir ca toolam yu sore yële ca euh, Thiel mu ci soññi taalibe bi yëpp nag. le 10 incha allah bi mooy bis bi nga xam ne ci lañ war a déparé mi ngi woo taalibe bi yëpp yëpp yëpp ak mboolem mbokk yi ci loolu cañ xam ne liggéey boobu du liggéeyub sëñ Fallu bu si muy toog di si kan bi du liggéeyub sëñ Cheikh Mbacke may toog di di di Sëñ Abdou Khadre liggéeyub Sëñ Abdou Khadre boo xam ne bii dafa bàyyi ko ci Serigne Touba wàcc ci moom ndax bu doon toon loolee eh, lii du am ndax ñi ko doonut ca moom. ñëmuñ ko ñëmuñ ñëmuñ ko santaane moom mi xam ne nag eh, yàlla dafa dogal Cheikh Abdou Khadre xam ne si ma sàmb kan ci boppam moo ñaanoon Serigne Touba ci bopp na ko damaa bëgg may ma sa bopp muy wax ju rëy ca gànnaar Serigne Touba ji nangul kàddu goo di ko sàmb ba ñëw Jolof daakee na ko ma woo ko benn bis na ko ma sàmb na ko ma la nga doon ñaan sama la nga doon ñaan sama bor na cee yow may naa la ko mu fab soxna soxna si baax si yóbbu fa ba Cheikh Abdou Khadre mi ak magam yi ci kon loolu tàggutee fu Serigne ma sàmb kan la loolu nag faaw ñu di ko dundal ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci aju ci kër si Massamba Kanni ñu di ko dundal dund dañ ko dundal ngir dundal gu ñu bëgg guñ bëgg si Massamba Kanni ak di ko dundal ngir dund dund guñ bëgg dundal si Massamba Kanni kon nag bokk yi bokk taalibe yi neen xam ne sëñ bi nee na liggéey boobu daal mi ngi ci woo képp koo xam ne kii aju ko ci kër gi bu la diis bii di ñëw incha allahu rabbi mooy départ bi nañ fexe ba dem fa nañ fa daan demee sottal ko nañ ko daan sottale ñëwaat ci jàmm salaam toog di xaaraat yeneen ay ati ati at ci kanam bi jaay Xadim Mustafa yal ñu ko yàlla defal ca lépp loo xam ne itam di ñaan di leen ñaanal yéen ñëpp ne kenn ku ci nekk ku teew ci bis bi ak ku teew ak ku amoon yéene teew ci teewoo ak ku dégg kàddu bi moo xam ci rajo ko déggee moo xam foo ko déggee sëriñ bi nee na na yàlla faj say aaju ci li mu gën a rafet bi jaay Xadim Mustafa ca faj goo ko bu faj tam yàlla doon faj goo xam ne gu sax lay doon bi jaay Xadim Mustafa di santam bi yëpp yëpp yëpp yëpp buñ ci tuddee suñu xarit bopp bi di suñu góor yaay rek ñu ci ñëpp suñ góor jaay dañ leen mën a yóbbaale yóbbaale leen kon nag sëñ bi sant nañ yéen ñëpp gërëm nañ leen yàlla leen yàlla fay ci taxawu leen yàlla leen la yàlla jàppale gën ngaa def ci jàpp leen lépp lu ngeen yóotu yàlla na nga ci jot bis bi itam saa bu ñëw tee kenn ku nekk foo nekkoon yàlla na nga yokk ba yëg ne yokk ci diggante bi jeex xadim sala wasalaamaaleykum wa rahmatullah këram waaw kër sëñ Fall waaw kër sëñ kër sëñ Fall bis ba le 10 kër sëñ Fall li ñuy départ incha allah rabbi fay waaw ñu jaari kër suñu mbàkk kan ci suñ xalifa ba kër ma xam ne mooy mooy xalifa kër kan gépp muy Baye Fallou bu ñu fañ dañuy déparé fee sarce ba wàcc bu kër Baye Fall ànd ak ñoom dem ci liggéey ba incha allah rabbi dañ ci waxtaanaat ba luñ ci ba ànd dañ dana gën a leer mooy bisub sëñ dafa am ko woote journée culturelle sëñ Massamba Kanni musta am sëñ Babacar Mbuub mii bokk ak Talla Mbuub lépp dëkk ca Mbàkke Bawol moo woote journée culturelle Serigne Massamba Kanni première édition ca Mbacke Bawol la 5 janvier loolu nag sunu bis la ñun nii ñu maasee teew fii ba lépp rafet nañ ko maasee àndandoo dem ca bis ba ndax Serigne Massamba Kanni la koy defal moom la koy wooteel kon na ko ñëpp waajal la 5 janvier incha allah fu waaye jëm mu yóbbaale ko. amin wax ji ñàkk moo ko ma dee day farfati ci guddi gi du ma nelaw mu jëloon micro bi du ma dama am problème ci moo tax faw ma wax ñëw daaru ko ne mu ñu bokku ma daaru xadim loolu cat na ci man gémmañ na kon du ma nelaw day fët fëti mel ni gusi amin bu sa baal yi yàlla yàlla defal jàmm amin mbooloo mi kenn ku nekk nga ne ne la jox ko loxo ko baal màq